avant nuy ñëw ci salatu ala nabi euh, ak ak yeneen xam ak soxna yi mën na ñoom ñu laaj mais euh, fatihatul kitab ak basmala baatu basmala mooy am na xamuñu basmala mooy bismillahi rahmani rahimi kese mooy basmala mooy loolu daal njëriñam euh, bëggoon nañu nga décortiquer nu ko indi ñu defal ci waxtaan sëriñ Mouhamed Samb alaaji Pape da ngaa tudd lu lu am solo muy faatixatul kitaab mhm. faatixatul kitaab nag mooy buntu mooy lépp waaye boo xoolee ni ko yàlla nëbbe yàlla daa nëbb faatixa xam nga lu tax mu nëbb ko da koo siiwal ba ñëpp xam ko waaw ndax bari waan na loo xamante ni bu siiwee kenn dootu ko jox importance bi mu war a am importance mhm. waaye alxuraan ci boppam ak téeméeri téere ak ñeent yi yàlla yi yàlla bind boo jëlee seeni mbóot yëpp mi ngi ci faatixatul kitaab waaw 104 téere la yàlla defar boo jëlee 104 téere yi seeni njariñ mi ngi ci biir faatixatul kitab seeni njariñ 104 téere yi mi ngi ci biir faatixa mi biir al mi ngi ci biir faatixa waaw léegi na faatixa bari na am na fanweeri tur yoo xam benn bokku ci sa morom moom faatixa moom faatixa comme yow tey niñ lay wooyee allaaji mhm. wala ñu wooyee la oustaz ñii naan Pape mhm. maanaam faatixa am na fanweeri tur te benn bokku ci sa morom ci mhm. ci turu faatixa yooyu bi njëkk mooy faatixatu bi ci topp faatixatul kitaab dinañ ko woowee ummul kitaab dinañ ko woowe alquranul azim dinañ ko woowe sab'ul masani dinañ ko woowee alwaafiyatu dinañ ko woowe alwaaqiyatu dinañ ko woowe alkanzu dinañ ko woote alkaafiyatu dinañ ko woowee al asaasa dinañ ko woowee an nuuru dinañ ko woowe suuratul xamdi dinañ ko woowee suuratul shukri dinañ ko woowee suuratul xamdi ula dinañ ko woowee suuratul hamdil hasri dinañ ko woowee ar ruqiya dinañ ko woowee as shifaawu dinañ ko woowee as shaafiya dinañ ko woowee suratul salat moom moom fatiha moom fatiha yooyu yëpp ci fatiha la bokk parce que yàlla yàlla dégg naa bu lay jox da lay comme bu lay jox enveloppe bu lay nëbb enveloppe dalay jox enveloppe ba nga xam ni doo xalaat ni lii la la war a seetloo léegi nag siiwuk fatiha siiwam ah. moom la ko yàlla nëbbe léegi nag moo tax fi ne li ci nekk ci ay secret maanaam fii ba maanaam ba ñetti at ci kanam ci man li ma ci xam li ma yàlla sédde ma xam ko ci fii ba ñetti at ci kanam bis bu ne mën naa cee wax loo xamante ne nii du jeex moom faatixatul ci faatixa rek moom faatixatul ci léegi nag comme waxtu wi dañoo tànc waaw mm-hmm. aaya bi ci njëkk mooy alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. alaaji Pape alhamdulilahi rabbil alamin boo ko adadee da lay jox 582 582 582 boo jëlee 582 nga diviser ko par 2. Mhm. day jàpp cent mhm. cent 291. 291 mooy nafaxatul yow njëriñal bis bi njëriñal bis bi. Hmm. léegi nag ki nga xamante ne ni yàlla daa dogal. àdduna njatt ko. koo xam ay biram dafa dëgër. dafa dëgër mënta am xaalis mënta am bayre mënta am wërsëg maanaam mbiram dëgër na jàpp huwallaahu ahad allahu samad. huwallaahu ahad. yéen ngi bind huwa allahu ahad allahu samad allahu samad loolu boo ko calculer mooy deux 291 waaw boo ko multiplier par 2 nag mooy 280 mooy 582 alaaji Pape maay maye da nga koy wérdu wala li ngay li ngay wérdu moom laay moom laay ñëw nafaxatul yow mi mooy huwa allahu ahad allahu samad huwa allahu ahad allahu samad moom ngay moom ngay def 291 291 léegi nag ki nga xamante ni daa bëgg yàlla moom dimbali ko maanaam addunaam baax allaaxiraam baax aajo ju mu am bu ko jullee julli gii may joxe bi may waajo joxe nii ci alhamdulilahi rabil alamin suñu borom day faj loolu moom mm-hmm. kon dama ne huwa allaahu ahad allahu samad mm-hmm. léegi huwa moo njëkk mm-hmm. da ngay njëkk julli ñaari rakk rakk bu ne nga tari ci fatiha ak onze suratul ixlaas onze lixlaas waaw rakk bu bu njëkk bi bu ñaaree bi tamit fatiha ak onze lixlaas après nga demaat ci deuxième rakka bi. Mhm. Fatiha ngay tari ak 66 sóoratul Ixlaas. 66 Ixlaas. 66 Ixlaas. nga demaat ci deuxième rakka bi tariwaat Fatiha 66 Ixlaas nga sëlmal. Mhm. kon ñaar dem na. Mhm. mu des ñett léegi huwa dem na allahu dem na ahad. léegi troisième rakka bi da ngay def Fatiha 13 Ixlaas de beneen bi ci topp nga def Fatiha 13 Ixlaas nga sëlmal. léegi am nga ñetti sëlmal. am nga ñetti sëlmal ñeenteelu sëlmal bi. faatixa ngay def 66 lixlaas defaat faatixa 66 lixlaas sëlmal mu des mu des benn mhm. léegi boobu nag da ngay def faatixa 135 lixlaas maanaam rakka bu ci nekk 135 maanaam ci taxawaay bi ngay def faatixa waaw mën nga yor sa kurus sax waaw def 135 135 lixlaas waaw deuxième bi tamit nga defaat 135 lixlaas boo paree loolu lépp boo ko dajalee mooy nekk alhamdulillahi rabbil alamin mooy 582 léegi boo sëlmalee ci dernier rakk bi dangay toog nga jël sa kurus nga def alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil ba mu mat 582. 582. waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw léegi nag boo noppee nag nga nga jàng juróom-ñaari salaatul fatiha nga ñaan mboolem loo bëgg. Mm-hmm. aajo ji lu mu mën a doon sunu borom dana ko fajal. Mm-hmm. Mm-hmm. aajo ji lu mën a doon rek. sunu borom dana la ko fajal. boobu mooy naafila bu njëkk bi. beneen naafila bi ci topp. mooy faatiha téeméeri yoon la mhm. waaye nii lañ koy jànge dangay def vingt boo jullee suba mhm. waaye boo ñëwee ci arrahmaani rahim comme boo jàngee alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin mhm. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin xam nga loolu mooy fatiha bi mooy fatiha léegi nag nii ngay def da def alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim boo nga taxaw mboolem loo bëgg ñaan yaa xam ci aloof nga koy ñaan wala ci bambara wala ci séeréer nga ñaan ko ci arrahmaani rahim bi après nga continuer arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyaaka nax bu du wa iyaaka nastahin da ngay taxaw ñaanaatal loo bëgg nga ñaan ko léegi nga ne ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anhamta alayhim xayrul maxdubi alayhim wala daalin mm-hmm. xam nga muy benn mm-hmm. nga continuer ko noonu nga koy continuer ba 21 yi mat ci suba si allahu akbar boo jullee tisbaar waaw nga def ko 22 nga julli tàkkusaan nga def ko 23 nga julli timis nga def ko 24 boo jullee gee nga def ko 10 loolu yëpp boo ko boolee mooy téeméeri faatiha hmm. léegi nga topp ko ba mu mat juróom-ñaari fan incha allahu rabbi sunu borom day faj sa aajo ji ci ci maanaam ci zahir faj ko ci batin maanaam maanaam rakka rakka boo taxaw da ngay def faatiha waaw ba ci alhamdulilah rabi euh, boo ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim ngay taxaw arrahmaani rahim ngay taxaw ñaan sa so soxla soxla sax bu la neexee nga ne yàlla may ma may ma kër may ma nangam may ma nangam loo ko ñaan ci ci diggante boobu arrahmaani rahim ak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa ngay ñaane fa ngay ñaane léegi nag boo ko defee ba mu ba mu mat noonu ma ko waxee sunu borom dana faj sa aajo zahir faj ko ci baatin mais la bala ñu dugg ci bas basmala am na beneen beneen beneen beneen beneen ñaari rakk yoo xam ni dama bëgg ku ne at mu ne doonte da koy def benn yoon ci sa dund mhm. dinga dem ba sa wërsëg dootoo xam nu mu toll ah waaw Pape xaw ma naan yéen a ngi déggam déedéet dégg nga li maanaam ñaari rakk yi ñaari rakka ni koy jullee waaw mooy benn bu ci nekk maanaam amul amul ay subhanallah ak ay taayaak yooyu waaw comme ni ngay jullee salaatul tasbih mhm. noonu nga koy jullee mais fatiha ngay tari boo ne allahu akbar da ngay tari fatiha ñetti yoon mhm. Mhm. boo rukonxee nga tari fatiha ñetti yoon nga jóg taxaw tari fatiha ñetti yoon nga sujjóot tari fatiha ñetti yoon toog tari fatiha ñetti yoon sujjóotaat tari fatiha ñetti yoon jóg taxaw tari faatixa ñetti yoon noonu nga koy toppee maanaam geste boo def rek ñetti faatixa nga ciy nga ciy tari heure boo toogee di taayee it doo wax ta doo wax doo wax atahiyatullahi may faatixa ngay tari ñetti yoon après nga sëlmal boo sëlmalee nga def ci taayee bi faatixa ngay faatixa ngay tari ñetti yoon waaw boo sëlmalee nga def faatixa 40 fois ak juróom-ñaari salaatul faatixa ñaanal loo bëgg it moom suñu borom da koy faj ci saasi moom faatixa mhm. fan yële doon naa joxe junni faatiha mhm. ndax junni faatiha li tax ma joxe ko man maa ko xam ndax kenn ku ci nekk booy wax ni nangam day jariñ xoolal ndax yow mi koy wax jariñ na la wala jariñu dama ne la képp koo xamante ni yàlla dogal na nga saxal junni salaatul nga nga saxal junni faatihatul kitab bis bu jot sunu borom dina la dimbali doo leb doo ñaan doo doo doo doo trian doo def dara te li nga bëgg yëpp di ko am moom junni faatiha maanaam mille faatiha bis bu jot nga koy def bis bu jot waaw léegi it hmm. faatixa moo tax ma ni la géej la hmm. maanaam liñ ci xam yëpp buñ ko doon wax du jeex waaye mënoo wax faatixa te waxu basmala basmala mooy bismillaahi rahmaani rahim waaw alaaji pap hmm. maanaam nee naa la liy yóbbu nit ajjana moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara liy yóbbu nit ajjana moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara saa su nit ki waxee bismillaahi rahmaani rahim mboolem benn araf bu ci ne sunu borom dina ko ci dindil ñetti junni ñaawteef. Mhm. bindal ko ñetti junni yiw. allahu akbar. moom bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim ko xoolee fukki araf ak juróom-ñeent. Mhm. mooy 19. ki nga xamante ne nii heure bu jullee mu toog def 19 bismillahi rahmaani rahim maanaam bu jullee ba pare ba def baaxiyaat saalihaat. Mhm. def bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba mu mat 19. zabbaani yoon yi nga xamante ne ñooy garde biir sawara du leen teg bët. allahu akbar maanaam sax saa yoo sëlmalee. waaw def 19 bisimilah rahmaani rahiim. waaw mhm. ak nit ki nga xamante ne nii tamit man na ko muy def bis bu jot 787 bisimilah rahmaani rahiim. dana defar addunaam day defar allaaxiraam ba allaaxiraam jeg mu defar addunaam. 700 787 mooy zafasul ci bisimilah rahmaani rahiim. Mhm. wala mu koy def 786. ñu wax la nga. Euh, nee na di aller doucement <laughs> parce que ñu ngi bind. <laughs> nee nañu pour nga pour nga def leen dànk <laughs> waaw léegi alxu mais bon mun ngeen dem ci replay bi après émission bi alors. voilà léegi bismillahi rahmaani rahim. Mhm. Mhm. ma ni 787 bismillahi rahmaani rahim képp koo xam ne yaa ngi koy wér du bis bu jot day jagal sa àllaaxira jagal sa àdduna. allahu akbar. moog ba tey jii ki nga xamante ni tamit daa xëy dépense jafe ko mu sonn balay am day jafe looloo bari ci réew mi nag sëñ bi su xëyee waaw bu jant biy jóg rek na def ñetti téeméeri bismillaahi rahmaani rahim kon kooku warul nelaw ba ba midi waaw déedéet nelaw ba bët set faaw mu yow teel a dugg nelaw ba bët set waaw du maye ak set lu dul maye ak set mag waru koo def allahu akbar sëñ bu mag bi mës naa romb ak kër mm-hmm. nit ñi di jooyoo booba waxtu julli moo jot mm-hmm. fajar gi bi mu demee julli ba ñëw laaj leen lu ñu doon jooy ñu ne ko dafa am ko faatu mhm. mun leen loolu jarul jooy ki jara jooy mooy ki nelaw ba fajar te jógul julli koo kookoo jara jooy allahu waaye ki nga xamante ne xëy na jant bi di waaj jóg bi muy jóg noonu mu def ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim mhm. ak cent salaatu ala nabi mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu borom dana ko jox dépense boo xamante ne nii day lew léegi nag àdduna bii ñu ne ku góor góorgóorlu ci sa bopp ndax fi ne dañoo toll jamono joo xamante ni bu ñu demee ci armeel yi kenn ku ci ne yaa ngi sa téléphone néew bi sax bu ñu koy dugal ci biir bàmmeel bi amul maanaam ñi koy ñi koy ñaanal fan fukki lixlaas ak benn bi ñuy def maanaam dañ koy parax parax duñ ko jàng ki nga xamante ni nag mi ngi dund te deewagul alaaji pap kooku nag jéem a fexe ci dundam donte benn benn cinq heures de temps lay toog wala trois heures de temps def bismillahi rahmaani rahim douze mille mu wóor ko ni bu ko xasee ba def moom bu deewee day dem ajjana mu defal ko boppam maanaam mu defal ko boppam yéene ko fi daaw na fi daawu boppam douze mille bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ñaata yoon benn yoon sa dund benn yoon ci sa dund ku ko def boo deewee doo dem doo safara gars yi loolu de xam ngeen ne am ngeen jot bi de douze mille douze mille douze mille yooyu noonu la mënee faj aajo douze mille bismillahi rahmaani rahim waaw maanaam noonu la mënee faj aajo jamono yële joxe woon naa ci benn sangat bu garaaw boo xamante ne nii képp koo xam bind nga ko fukki junni ak ñaar mhm. nga dugal ko ci siwo mhm. def ci ndox gas ba mu xóot suul ko mhm. ba mu mat fukki fan ak ñaar nga sulli ko sangoo ko heure boo sangoo nga fexe ba wérdu ko fukki fan ak euh, maanaam fukki junne ñaar bu fekkee mënoo ko wérdu yow fukki junne ñaar nga wut ku la ko wérdal fukki junne ñaar maanaam wërsëg bi mu lay jox moom dañuy dem ba jàpp ni da ngay luxus wala dara allahu akbar moom ci douze mille bismillahi rahmaani rahim hmm. douze mille bismillahi rahmaani rahim day dindi liggéey 12000 bisimilahi rahmaani rahim day dindi cet 12000 bisimilahi rahmaani rahim day tax yàlla jéggal la say bàkkaar. allahu akbar. am na ci beneen boo xamante ne nii mooy 12592 maanaam da koy suul siiw bi fukki ñaar ñaar fan ak ñaar ak ñaar waaw. boo boo ko du boo ko suulee ba mu mat fukki fan ak ñaar nga sulli ko ba mu ba nga sangoo ko fukki fan ak ñaar waaye heure boo sangoo bu la neexee nga jël sa xaalis nga xool ku la mën a wérdal nga fay ko mu wérdal la ko fukki fan. maanaam fukki junni ak ñaar. dama koy def dama koy def mhm. maanaam sunu borom dana dimbali ci yooyu. moom ci bismillahi rahmaani rahim uh-huh. bismillahi rahmaani rahim nag uh-huh. am na ci ay ay ay yooni yoon yoo xamante ne nii lu am solo la fi ne boo te ni mu gàttee noonu tudd ko yomb noonu njëriñ li kenn xamul mu toll déggoo ma ni la benn araf bu ne ñetti junniy ñaawteef bindal la ci ñetti junniy yiw boo xoolee ñetti junni yooyu boo ko multiplier par 19 day doon 47000 ci ay ñaawteef yàlla da koy dindil nit mu wér del la naa nekk kay ah. mën naa nekk ndax ni ngay joxe nit mu di la jàngal alquran bu faatoo maanaam li sëñ Tuubaa wax ni isduhaa mhm. yan fahu maytan fil xubuur mhm. wa yan fahul xayye wa yujibul ujur mhm. ñaan day jariñ ki ne ci biir bàmmeel waaye day jariñ ki nga xamante ne nii moo moo moo mooy mooy mu ngi dund waaw looloo tax nag euh, bismillahi rahmaani rahim moom it buñ ko toppoon fii ba suba moom duñ fi jógee ci basmala léegi mën nañ dugg ci salaatu ala nabi salaatu ala nabi ndax njëkkee nañ ci borom bi subhanahu wa taala fatiha bisimilah rahmaani rahiim